te dafa nekk ci ñun fierté ñu nekk doomu wàllu te fi ñu taxaw tey doomu wàllu mosoon na fi taxaw muy Habib càmm yàlla def ci gouvernement yi bu ñëw doomu wàllu nekk ci te ku ci nekk jouer rôle boo xamante ni ni kenn du ni accam kon boo boo dee doomu wàllu teew fii ñuy gërëm sa ñoñ dinga ci bëgg démb ñu gërëm suñu càmmiñ fii mu nekk lu ñu neex muy Mass Thiam liggéey liggéey bu am solo ci Sénégal ñëpp di ko wax ñu bég ci di ko wax am ñu ci onk waaye ñun euh, naqadiwuñu parce que lu neex la ñu dénk la nga def ci li nga ci war a def tey loolu yàgg fi nag ci Waalo monsieur Oumar Sarr président Abdoulaye wàdd doyloo ko liggéeyloo ko mu liggéey ci liggéey bu rafet ñëw ànd ak le président Macky Sall li ñuy wax ni bëgg du bañ ànd ak moom jox ko ministère boo xam ni du ministère boo xam ni danaan jox ma déedéet moom ministère am ministère la boo xam ni day natt dugal Sénégal kon yaakaar naa confiance weesuwul loolu ñu di la ci gërëm di la sant ku ne xam na tey ministère bi nga yore dafa bokk ci ministère boo xamante ni nii day suqali day dolli koom ci budget de solidarité bi président Macky Sall def